depuis 9h ce matin. C'était la promotion spéciale dès la musique sénégalaise entre 9h et 12h sur la RFM. Salut à puis bon appétit. Ku ci togg taxin ku ne ak ma woowaay taxin ci boppam moo ma intéressé. nekk am sa salañ salañ ni ku nekk am sa kese kese. tiw ndey si <laughs> nga caa sotti wuñ la. nooy na nepp. nga na nepp. xanaa Bakay ko laa ah, ko laa ko tuddee. ah ne chéri. aywa <laughs> ma lay tu tu tu où tu vas. man ah. sama kër yaay laa jëm. sa kër yaay. waaw ah, sama kër yaay fa fanaan sax tey. fanaan waaw. ba jàmm la. jàmm ak salaam ndax maa wooree fa laay fanaan. Mm. Eh, du dara yow tamit nag foofu dong laay fanaan maa ngi dem maa ñëwaat. mais <laughs> fi ma nooy na kon fi ma génn. nooy na. kon baax na. xoolal. Mm. <laughs> jàppal junni bi. nii la la paas càkk <laughs> nga ko mu rey. hey Bakayoko. comment tu vas. bien. tu daal moo neex quoi. bon neex la yore. salaamaaleykum. Ndeye Diallo. na nga def ça va alhamdulilah ça va bien ça va bien. en forme. yow leer nga de. nga sañ si sax. sama kër yaay de laa bëgg de moom woo fu ma fanaan fa tey. Samba moo la woo. waaw fa nga bëgg fanaan. waaw fa lay fanaan waaw. ok amul problème. Mhm, naka liggéey bi. ça va góorgóorlu. alhamdulilah lépp jaam. jaam. waaw ça va alhamdulilah. waaw nuyu dégg incha allah.

tu vois non am na coow am na audit am na bare coow quoi donc mu patienter tuuti quoi hmm? après ñu engagé ci mariage bi waaw yow xoolal li nga wax yëpp dafa bëri looy mënuma ko nettal dangay bàyyi ba nga dem nga waxal ko sama sa bopp sama yaay mënuma ko. ah Ndeye mais non dimbali ma rek fu fu may dem tey politique yëmbati rek. ba nga yàqu déggoo li ngay wax xaw ma fu may commencé fu may teerle mënu ma ko wax ba bàyyi ba nga dem nga waxal ko sa bopp xanaa déggoo li ma la wax. bon bon bon xaaral xaaral faut faut faut faut dire à maman que quand j'ai patron va me laisser dina ñëw foofu. waaw incha allah voilà mais mais faut commencer dina ko eggale quoi. dina ko commencer duma ko